<laughs> alors avant ñu accueillir suñu premier invité juste euh, rappeler que alfi euh, Alfie euh, fi lekk ay minutes ñu euh, togg palmier. palmier ah euh, lan la gâteau wala mburu la lan la palmier. en fait euh, ci famille yu viennoiserie la bokk rek. ah dafa saf sukkal dafa saf xorom. oui c'est sucré. ah c'est sucré comme genre gâteau. comme genre euh, vienno viennoiserie. viennoiserie ci ci domaine boobu la. ci xeet boobu la bokk xeet boobu la bokk. d'accord c'est à base de pâte feuilletée et de sucre. d'accord d'accord d'accord kon dans quelques minutes ñu bàyyi la nga defar ko. tout à fait ah, ci épicerie yu mag yi nañ koy jaayee. yu baax la. et les boulangeries. waaw yu mag moom nga defar. ma ne ci boulangerie yu mag yi nañ koy jaayee. waaw waaw et c'est c'est très facile même trop facile même à faire. yomb naa def trop même trop facile à ni d'accord kon léegi ñu ñëw nga defaral ñu ko. d'accord waaw ah, mooy dëgg. Mmh. Aïcha on enchaîne tout de suite avec notre premier invité.